salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu mbooleem képp koo xam ne mooy seetaan site bi. waaw ñu ngi leen di fay sëñ Mamor listixaar seet dañuy dégg seetal ma di dégg listixaaral ma listixaar ak seet dañ dul benn wala buñ dul benn lan moo leen wutale ñoom ñaar. waaw xam nga listixaar ki koy def bokkut ak kiy seet ñaari mbir la yoo xam ne dañoo xaw a wuute. ndax ki nga xam ne moom mooy seet xibaar yi muy jot da koy jëlee ci jinne te jinne dafa libre comme doomu aadama bi maanaam ni mu la mën a waxee dëgg noonu la la mën a waxee fen amul leen du koy tënk beneen bi itam bu yonent bi wàccee ba léegi amatul benn jinne bu am droit yéeg ci kaw asamaan si naan da ngay diglu ay xibaar loolu alquran la alquran ma ko wax fa may yastami l aana yajid lahu sihaaban rachada képp ku demati ci ñoom di jéem wut ay xibaar foofa da nga fay fekk ay jumi sawar yu la fay dàqe kon ñaari problème mi ngi noonu benn bi dafa libre mën na laa war wax la dara te fekk lim la wax amut ñaareel bi mooy mënatut àgg fa mu daan egg pour jot ay xibaar listixaar nag ki koy def moom xibaar yi muy jot da koy jëlee ci rawxaan te rawxaan nag moom comme malaayika la mel mënut a wax lu du dëgg te loolu alquran la moo wax ne laa yaxsuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna maa yumaruun maanaam ñoom mënuñoo may seen boroom li mu leen digal rek la def moo tax ki nga xam ne mooy listixaar xibaar yi muy jot da koy jëlee ci rawxaan te rawxaan dafa mel ni malaayika benn mënuta fen mënuta wax lu du dëgg mënuta moy ñaareel bi mooy fa mu doon jëlee ay xibaaram kenn aayewu ko ko am na la leneen lu ci am boo xoolee ci tur wi rek dangay gis wuute gu gën a leer mooy listixaar boo ko firee ci wolof da ngay wax tan seet nak mom ay wolof la moy kuy def dara te gisagu ko day seet xolal rek ki nga xamné da doon jënd dara mom gis lim limi jënd ba nopi di tan koku day ñëw jël bi mu gëna bëgg ki nga xamné day wër li bëgg te gisagu ko nag koo kon ñaar yoy amna na différence bu baaxa baax seet mo listixaar moo gën a wóor kon señ Mamour bu ñu déggee gisee waxtan lu bëree bëree bari daal dañuy faral di seetlu ne yow dafa mel ne daal mbirum jinne da faral di ko dàq dañoo xamul ba xam da nga koo gëmul dañoo xamul ba xam jinne dafa amul wala lu am la léegi loolu lépp diñ ci bëggoon ci ay leeral mooy maanaam jinne maanaam mooy lan. jinne moom duñ ko dàq. alquran moo ko dë moo ko dëggal alquran moo dëggal jinne kon kenn mënu koo weddi. nafarum minal jinni la wax nafarum minal jinni yastamiuuna alquran mbooloo mu bari ci jinne yi diglu alquran kon jinne alquran moo ko dëggal kenn mënu ko weddi boo gisee nag bu ñuy wax ñu yittewoo xam-xam rek di bàyyi jinne mooy xam-xam dafa ëpp doole parce que jinne ji nga xam ne moom ngay topp di ko yéem lépp loo gis mu xam ko rek maanaam bindam la tabiyaam la tabiyaam tabiyaam bu ñu ko waxee mooy aw meloom boo gisee jinne li mu def jeneen jinne ji da koy man comme ni nga ni mu mel ne am picc bu naawee man jeneen ji day naaw kon loolu da ko juddwaale nekkul loo xam ne ginnaaw bi la ko wut ba am ko xam-xam nag moom ki ko amee ginnaaw bi la ko wut ba am ko loo tax suñuy waxtaan ñuy waxtaanee xam-xam te it xam-xam koo gis mu not ay jinne ci la jaare ba not ko ci xam-xam koo gis ay jinne not ko tamit borom nit dindi ko ci xam-xam la jaare ba dindi ko kon xam-xam du moroomum jinne loolu dama ci indil benn xibaar bu ndaw bu xewoon ci yonent yàlla Suleymaan bi nga xamee ne Bilqis mi ngi ñëw di waaj a jébbali ci moom dafa ñëw ba ci yoon wi yonent yàlla Suleymaan yëg ko bi mu yëgee ne Bilqis a ngi ñëw mu wax ne dafa bëgg ku ko indil siège bi mu daan toog njëkk muy ñëw ngir bu ñëwee gis ne siège am bi egsi na fii njëkk ko fii mu mën a gëm benn junne jëg ne ko benn junne jóg ne ko ana atika bi xabla an taquuma min maqaamik man maa la koy indil njëkk muy egsi fii ci sa place bi benn boroom xam-xam jóg ne ko ana bi qabla ay yartadda ilayka tarfuk maanaam man maa la koy indil njëkk ngay xef di xeppi te kooku nit la moom ci xam-xam la jaare ba indi sees bi njëkk Suleymaan te xef di xippi junne ji moom li mu mënoon rek mooy dina ko indi balaa ñëw loolu tegtal la ci nga xam ne xam-xam moo ëpp doole jinne waaw. lii nag moo xam ne dafa am solo lool te jaaxal nit ñi lool muy jëm ci wàllu ngóora mooy nit koo xam ne. dafa tele manu dara wala lim man dafa neew seigne mamour lolu ndax man nañ ko fat bir alquran alquran dafa wax ne وننزل من القران ما هو سفاء من ما واتي تي بي القران لو خامني داي سافرا لو خامني لا واخ لو خامني واخوت لي سافرا لان لا كون دا نيك تي بير لو خامني كوكو بغا خام داكاي mu nek mbir mo xamne da ngay nit dem nit day dem ko ba pare xam ko so gisee toujours bu ñuy wax ñuy wax naan kenn ta ñaanal nit ki te jaare wo ko ci melaw yalla yi ak turam yi wala nga jaare ko ci ñaan gu bax fi waju bax bayyi won lool motax alquran dafa wax ni qul idu allaha aw idu rahmaana ayyama tadhu falahu l asmaul wa walin leen ma yalla mbaaw ngeen woowee ma rahman tur yi nga xam ne mooy sama tur yu sell yi bu ngeen ma ci woowee baax na moo tax ñun loolu suñ ko bëggee def dañuy dem jëli loolu dañuy jëli asmaaullahi alxusna yi buñ ko jëlee boole ko ak alquran su ko defee dañuy am wane nazilu min alqurani ma huwa sifa ndax alquran dafa am ñaari mbir yu wuute dafa am lu ñuy wax tafsir am lu ñuy wax tawil tafsir bu ñu ko waxee mooy firim baat yi loolu ñëpp ko xam képp ku dégg arab rek boo gisee téere bi bu ñu ko waxee nga firi ko waaye nag dafa am lu ñuy wax ta'wil ta'wil nag ñëpp xamuñu ko ñenn la ko suñu borom jagleel te loolu moo ko wax wa maa yaalamu ta'wilu illa allahu arrasiquuna fi l ilmi amul kenn ko xam ta'wil ku dul yàlla ak ñam tànn ci borom xam-xam yi loolu moo tax ku xamul ta'wil boobu loolu nga def ko ci biir alxuraan day jafe waaw loolu moom ñeent rek lay dale nit benn nit ki da koy judduwaale wala rab teg ko ko wala mu doon fooye boppam wala mu dab ko su fekkee ne da judduwaale moom mënuñu ci dara waaye nag bu fekkee ne ñett yi ñu la mujj wax moo ko teg mooy moo doon fay boppam wala rab teg ko ko wala mu dab ko subaa moom dañuy jaar ci biir alxuraan saafara ko ndax liñ la waxoon ci aaya bi rek moo ci am ñaari ñaari mbir rek lañ koy saafara mooy yàlla yi ak melom yi ak garab yi garab yi nga xam ne moo am ci kaw suuf si bu dee yàlla yi ak melom waxoon naa ko wax gu leer nee naa la ci biir yàlla moo wax ne bu ñu koy ñaan ñu jaayee ko ci melom yi ak turam yi te alquran ben la ci meloy yàlla yi garab yi itam liw ci alquran moo ko wax ne wa maa xalaq na samaa wal arda wa baynahuma batilan man bind ma ci diggante asamaan si ak suuf si lenn lu amul njariñ su ko defee nag looloo tax bu ñu boolee yooyu rek suñu borom mën nañu cee defar allah. alquran mom lépp la mën a saafara lépp la mën a saafara xam loo nit la ko xam suñu borom ci jëm boppam moo la ko teg te jaariwu ci kenn moo xam loo xam ne junne moo la ko teg ndax alxuraan dafa wax ne maa farat naa fil kitaabi min say téere bi bàyyiwuñ ci dara lépp a ngi ci biir yaa ngi dégg ñun nag yooyu moom bala ñu cee mën a wax dañ koy listixaar ba noppi ndax nekkul ni kum dal rek daa lu la ko teg képp kum dal daa lu la ko teg te li koy tegee bokkut léeg-léeg mu dal nit te fekk jinne moo ko teg léeg-léeg mu dal nit te fekk euh, suñ borom moo ko ko teg rek noonu léeg mu dal ni te fekk nit ci jëmmi bopam moko ko def ndax tamit il faut ñu xam ak jabar lu am la alquran moko ko dëggal moo wax ne saharu ayuna nasi wastarhabuhum ñu jabar bëti nit ña gëlem lo leen te lolu bañ doon jabar nit ñooñu leen di gëlëm loo amuñu won seen tour turi yaay amuñu won seen turi baay te buñ leen jabaré dañ leen japp kon lolu dafa am waye nak ñun buñ ko xolé ba li ci xar ko bu ci nekk dafa am nuñ koy defee su fekkee ne ki nga xam ne jinne moo ko tek koku ñun ñu ngi koy defar dañ koy defar ab jaaro lay doon boo xam bu ko takke lu mu yorati suñu borom dana ko ci defal tawfiq ba mi dess ci loxom am ko xamne nak ginné moko ko tek koku liñ koy defal ab cangay lay doon cangay bo xamne bu ko sangowé loolu day denc mom ginné ji da koy bayyi dem am nak ño xamne nit ci seen bop mo leen ko njabar koku bal nga ko defal dara rek da ngay toj njabar gi ba nopi njabar nak mom alquran da ci wax lu leer nit ñooñu ma la doon nettali ni nit niti musa ya bañ njabaré ba noppi alxuraan dafa wax ne inna allaha la yusliu amalal mufsidin yàlla du yéwénal mbirum ñuy yàq ñun suñ koy def ci aaya boobu lañ koy jaare boole ko ak yenn tur yàlla suñ ko liggéeyee rek lu mu fekkoon ci sa yaram da koy dindi incha allah mbir yi de xanaa mën nañ koo tënk rek ci ñetti point bi ci njëkk mooy listixaar ak ak seet listixaar ak seet moom alquran moo jël listixaar teg ko ci kaw seet beneen bi mooy li nga xam ne moom lañ waxoon ci jinne ak xam-xam loolu it alxuraan moo jël xam-xam teg ko ci kaw jinne indi nañ ay ci biir yi ñu koy dëggalee li ñu waxoon ci wàllum ngóore itam alxuraan lañ indi woon layalee ko ko li ñu mujj wax nii itam ci wàllum masalan ki nga xam ne daa yor loxo euh, daa yore dara muy yàqu listixaar lañ koy xoolee ba gis ko xam lu ko sabab ñu dem ca sabab ba ifancé ji ko incha allah ñuy wax ne rek ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen xamal ne wax ji yëpp li ñu ci jublu rek mooy dimbalante ndax xam-xam mom bu nekk ci sa dund ba nopi dund wo ci jaam ñi daanaka mom nga bañoon ko xam mooyam te ndimbal nak ñepp koy soxla yalla sax leg leg day soxla ndimbal wax na ne in tansurullaha yansurkum bu ngeen dimbale yalla yàlla dimbali assalamu alaykum wa rahmatullah